population yi lañuy ñuy jéem a nax bu ñu leen falee ñu xool kees gi yëkkati ci def seen poche boole kook seen njaboot loolu politique boobu dafa dépassé moo tax président Macky Sall ne ñun politique bi ñuy def politique bu set lay nekk dañuy xool cadre yi xool nit ñu baax ñi xool nit ñu bëgg Sénégal yi te jiital ko ñu ànd ak ñoom liggéey man mii nekk directeur de cabinet nee naa leen président Macky Sall digalul kenn mu jël alalu réew waxu ko defu ko te kenn du ko ci fekk ñiy wax nag il faut ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa dañ koy tuumaal tuuma moom mënuñu ko bañ parce que dépendrul ci ñun waaye nag nag ku am preuve na ko génnee ne preuve a ngi nii contrat yi Thierno Alassane di wax Macky Sall jël na ci ñaar wala ñett wala féetale woo ko rakkam wala magam wala doomam dañ ko génne man loolu laa bëgg parce que nag politique war na ànd ak ngor war na am sàmmante sa diine te lislaam moo ne d'abord bu ma defee sax ab ayib man nañ ma ko sàmmal ab li raison ku deful ayib ñu koy ay ayibal nañu génne preuve bu ñu am ci président Macky Sall ci convention concession minière yi nga xam ne ñu ngi koy wax parce dañu tiit xam nañ ne Sénégal incha allah dina dem ci kanam loolu lañ xam xam nañ ne Sénégal incha dafay dem ci kanam ak la président Macky Sall parce que bi mu analyser Sénégal ba pare te loolu yàlla moo koy defar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toogoo rek jékkee-jékki ñu ne ko waaye yonent bi dafa am fu ñu ko jaarale dégg naa opération chirurgicale sax am na ci yàlla bi mu namee indil Sénégal président bu mat président bu ànd ak jikkooy Sénégal nga xam ne jikkoy jom la ak fula ak fayda ak sàmm sa ngor daf ñu andil Macky jaarale ko nag fi mu ko war a jaarale jaarale ko fi mu war a jaarale jaarale ko mu dem jàng ba am xam-xam diplôme am kenn du ko nattable diplôme Macky Sall kenn du ne am na wala amul ci département Thiès nag am ngeen koo xam ne ba jon yi yàlla tey jii ñu ngi laaj ndax diplôme am na wala amul ak fu mu ko jàngi mu jaarale ko mu nekk directeur général Petrosen nekk ingénieur jàng fii ci Sénégal motali njàngam France mu jaarale ko mu nekk ministre de l'énergie jaarale ko mu nekk ministre de l'hydraulique jaarale ko mu nekk ministre d'État ministre de l'intérieur du Sénégal jaarale ko mu nekk premier ministre du Sénégal jaarale ko mu nekk assemblée nationale du Sénégal mu xam nag dëkk bi ni muy doxe dem fu ne wër Sénégal trois fois fekk nit ñi ci àll bi fekk góor yàlla yi ci néegu ñax yi gis yoon wi ni mu méttee loolu am na ku nekk Sénégal ba léegi nekk dafa premier ministre cent kilomètres en dehors de Dakar defu ko yàlla dimbale ko mu ñëw toog xam fii metti fan la moo tax mu def plan Sénégal émergent tey fi ñuy waxee ak yow cinq mille milliards d' engagement financier et d' accord financier si nañ ko ak communauté internationale bi pour dëgëral plan Sénégal émergent Sénégal depuis 2000 2000 am na ko fi nekkoon sunu papa la sunu maam la ba 2012 4 milliards lañ fi dugal ci engagement 4 milliards 12 ans 4 mille milliards 4 ans 5 mille milliards. ñun bi ñuy jël réew mi 23 kilomètres d'autoroute moo fi am 23 kilomètres d'autoroute pareeguñu ci sunu premier mandat def nañ 35 kilomètres d'autoroute autoroute bi léegi dem na ba aéroport incha allah ci ay fan yu néew dinañ ko yóbbu Mbour te ñu ngi négocier autoroute Mbour Fatick Kaolack mais di Ila Touba nag 125 kilomètres d'autoroute Ila Touba. waa léegi nag ñun ñu sunu mandat mën nañ comptabiliser trente cinq kilomètres d'autoroute comptabiliser cent vingt cinq kilomètres d'autoroute muy ñaata cent vingt cinq plus euh, trente cinq cent soixante kilomètres te pare guñu bourse sécurité familiale lan moo ko tax mu ñëw parce que gis nañu ne am na sénégalais yoo xam ne dinañ juddu ba génn àddina amuñu benn contact avec l'état du Sénégal parce que fayuñu impôt kenn faye ko leen impôt demuñu école demuñu fenn bu ñu feebaree du mën a faj seen bopp kon amul benn contact ak benn ndimbal bu jógee ci état président ne loolu bari na ci dëkk bi dañu ko xeex à travers PSE pour que inclusion sociale bi mu bëgg parce que nag boo nee kaay lañ jóg dox yi te ñu nekk ay nit ñu bëri dox boobu il faut nga xool ñi nga xam ne seen dox yéex na il faut nga xool ñi nga xam ne dañu feebar te mënuñoo dox comme ñeneen ñi mu ne xaaral ñii ñu yokk leen doole. yokk leen koom ba nga xam ne dox bi dina gaaw loolu mooy capital humain PSE bi mu ko defee ba pare xam na ne lii horizon 2035 mu ne balaa horizon 2035 lu ne xaj na fi te population yi mënuñu xaar moo tax mu indi ñaari programme d'urgence ba ci ñett programme d'urgence programme d'urgence d'électrification rural ministre bi wax na ko léegi du ma ci dellusi programme d'urgence développement communautaire balaa ñuy dem ci kanam béykat bi nekk taset war a bay te bu ndox bu ndox amee du dem légumes yi du ko jaay mbayam du ko jaay président ne gaaw leen ngeen defar fii ay piste yoo xam ne bu ñu bayee ba pare dinañ ko génne jaay ko bu ñu ko jaayee mun ci am ngom ko defe naa ne yéen piste yi yëg si na fii piste yi ñëw na taset wala ñëwul taset depuis 1960 ngeen xaar piste ku ko fi andi. président Macky président Macky Sall. 2 milliards bi ku ko fi andi. ci nguuru kan la ko indee neexul ba neexul roy du nuroog piir te dama ne ki fi nekkoon jàmbaar la waaye gaynde gu màgget la kii nag gaynde gu jeune la xam nga gaynde bu màggetee du rëbbi kii nag dafa jeune am talent am génie am ngërëmu waajur sëriñ si ñaanal moo tax incha allah il faut mu dem ci kanam moo tax ñiy wax nag nañuy wax rek ñun ñuy liggéey di jëf ku wàññi lycée yi 2012 ba 2016 ñaata lycée moo am nga wàññi château d'eau nga wàññi li am ci ay électrification ministre wax na ko léegi ci ay village nga wàññi financement des femmes ak wàññi wàññi wàññi wàññi wax dëgg yàlla di nga xam ne ah li ñu liggéey ku ne mën na ci teg sa bët moo tax ñiy wax dañ leen bàyyi ñuy wax xam ngeen li amoon fii senegal xam ngeen li amoon fii ci sunu département ku nekk premier ministre waaye làmmeñ bi moo gën a neex lem waaye bu jëfee rek nga xeeb benn premier ministre mënus fi nekk signé dégg nga ma chantier de Thiès plus de 40 milliards de francs CFA taset am na ji est-ce que taset am na ji sance de Thiès. est-ce que wàcce na ba sëñ sëñ wàcce na ba est-ce que am nañ ci chantier de Thiès luñ fa def est-ce que waa Notto Diobass am nañ ci est-ce que waa Ngoundiane laal nañ ci 44 milliards nga ne tu es un homme de la région ñu jox la ko ci résion jox la ko ci département benn département ne peut dire aujourd'hui qu'il a reçu une brique de ces chantiers de Thiès kooku signé la protocole de Rebeuss que j'appelle l'homme le plus inconstant l'homme le plus inconstant de l'histoire politique du Sénégal lu mu la wax rek bu ko fayee bor ñooñu ñoo nekk tey di ñu sonal di ñu tànqal di wax lu leen neex te xam ne dallu président Macky Sall sax du seen morom. dëgg la c'est ça moo tax. ma remercier bu baax le maire Mamadou caw ak nag ñi mu àndal ñëpp ci conseil municipal particulièrement les maires adjoints féliciter suma frère Abdou Ndongo kii doomu taset bu baax la man en tant que maire de Thiadiaye balaa may nekk maire nekk fa responsable politique di liggéey di indi ndimbal jeunesse bi ak école bi ràññee nañu bu baax taxawaayu Abdou Ndongo ci biir école lycée caajaay boobu mu nekk fa nag xale bu yaru xale bu baax xale bu bëgg boppam mais aussi xale bu gëm liggéeyam kon moom li mu def ni bettu ma parce que xawuma ko ci ñàkk nangu dëgg lii mu def nangu dëgg la xam na ñii kat ñu ngi liggéey bu ma duggee ci politique c'est pour satisfaire les besoins de notre population ma toog gis ko ci suma maire mu koy liggéey yëf yi di yokk di jëm ci kanam cëram mooy wet nekk ci wetu maire bi fu mu yëkkati mu jàppale ko taset jëm ci kanam mais gis na ne aussi moom parti bi mu ne parti boobu jëmewul Sénégal kanam ñu jox la premier ministre ngay si signé ay protocole 27 milliards ne dama koy delloo dugal ci 7 milliards te loolu dëgg la kenn du ko wet moom moo ne woon juste avant l'extinction soleil baa ngi nii waaye protocole baa ngi nii soleil bi de mu ngi nii fayagul de protocole bi nag mu ngi ne weng ñëpp gis ko ñooñu amuñu leçon bu ñuy jële ci ñoom kii dafa yor nekk directeur général ba président assemblée nationale kenn mësu ko ne yaa jël dërëm bii mu manqué kenn mësu ko bu ko manqué loon xam kenn mësu ko wax nañ ko génn kon du tey lay lay tiim yëf di séddale di baadoola baadoola danga koy judduwaale boo waxee mu feeñ boo jëfee mu feeñ boo doxee mu feeñ moo tax caw tey on lance l'opération libérer le département de Thiès parce que nag ñun lépp yi dañ ne ay di weesu bàyyi dee na sama noonu baay moom duma ko duma ko duma ko yaatal moom ñun lépp yi ay du weesu baay dee na comme kii moom seen patron rek lay bañ a gis balaa moo koy suul suul leen ko loolooy fula moo tax incha allah parte boobu commencé nañu ci Abdou dinañ dem ci ñeneen parce que nag Sénégal moo leen war a ñor ay wax yoo xam ne amul bopp amul genn waru leen a ñor te nag loo bañ bañ la xam ne gudd na ay nopp nag Macky Sall ngi liggéey nag wax dëgg yàlla ku dox ci mbedd mi pakastaloog lu muy def te it nag ndongo ne moo di Thiaw mu ngi liggéey mais dafay copier président Macky Sall nit boo bëggee sa kilifa da ngay niroog moom boo gisee taalibe murit góor géeb xam naa ne taalibe murit la te waxuma ko boo gisee taalibe cheikh di nga xam taalibe cheikh la boo gisee ku dëkk cereba di nga xam ne waa cereba la kon nag bu ñu gisee ku nekk ci wetu Macky Sall bu waxee wala mu taxaw war nañoo xam ne Macky Sall la ci yar bi ci teggin bi ci fulla bi ci fayda bi ci bëgg liggéey bi te ñun nag loolu rek lañ leen di woo kon moom du ñu ngi lay encouragé di encouragé le ministre Thierno Alassane Sall Thierno Alassane xam nga ne yow lu rëy nga am. Thierno Alassane ku am fulla la ba ma ne gouvernement Macky Sall ki ci ëpp fulla du ma hésité ñaari yoon ku ci gën a gëm boppam du ma hésité ñaari yoon ñi ci gën a compétent parce que loolu nag du ma ne moo ci gën a compétent mais ñi gën a compétent Thierno Alassane mu ngi ci biir ku bëgg Sénégal ku bëgg liggéey ku man liggéey Thierno doo ko du am xaritu woya woya bu la defee xarit nag ba ànd ak yow nekk sa frère da ngay xam li nga am nga téye ko benn seytaane bañ leen jaxas nga téye ko ànd ak moom ngeen liggéey département de Thiès bi